ñu dalal yaakaar naa ne mbégte la ci ñu toog moom ki ñu dalal moom la burgé woon a Alaaji Sàppali waaye ki ñu dalal itam moom mooy mbokkum yaay bu Sékkotok ku ne min na ko ak moom moo waral tey ñu fekk fii ci Sékkotok muy euh, place bu bees bi nga xam ne Boucher moo ko fi tijji ñu fekk ko fi tey ngir waxtaan ak moom ci wàllu làmb da nga xam ne làmb fi mu ne yi bëri na ñu waxtaane ay combat yoo xam ni fi mu ne ñu ngi koy séntu ci kanam bokk na ci euh, bi nga xam ne jëm nañ ko diggante Ama Baldé waaye tam Ada Fass il faut bëri ak guy gi gis njaago yi nga xam ne tey moom moo di Zos ak yeneen i combat nga xam ne na ko jotaay nuyu ko bu baax bàyyi ko mu ñëw bokk internet bi ko suivre. am na solo maa ngi wax baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu Sénégal gépp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura ak xéwal yéen ñëpp di nuyu bu baax di nuyu ñaari chaînes yi nga xam ne tey jii ñoom laa jàkkaarlool ba ñett yi nga xam ne ni tey jii yaakaar naa ne. seen liggéey ci réew mi moo leen yóbbu fi ngeen àgg di nuyu sama xarit bi nga xam ne tey jii fii laa toog ci restaurant am ndax yaakaar naa ne biñ koy dox boobu ba léegi maa ngi fi li tax ma nekk fi rek mooy doomu aadama boo àndeek nit muy créer benn affaire bu baax muy investir dara lu baax ci àddunaam danga koy danga koy danga nga ànd ak moom yaakaar naa ne képp ku mës a takk ngemb ci Sénégal lii buusi ko cëpp ibbi ferte la ci yow képp koo xam ne nii doomu senegal nga lii bu Boucher Ketchup investir ci alalam ferte la ci yow bu dee nit ku baax nga ndax ci làmb la nekkoon bu dugg ci leneen lu bokkut ak làmb yàlla may ko ci teraanga mu ne lii ma am dinaa xool quelques xale yu toll ni man ma bokkook ñoom ñoo ñooñu di fi am salaire di yóbbu seen kër di dundal askan wala di dundal famille kon bu fekkee ne dafa créer lu mel noonu dañ koy ñaan yàlla ko suñu borom àggali. yàlla na ci réussir yàlla bu mu ci lu ko ragal. yàlla nañu dem ba sekkee ca wër àdduna. lu war a mën a nekk la. am na ambition bi xale la ku gëm boppam la nag balaa ngaa xam ne ku gëm boppam la man benn seed rek laay def ci moom balaa maa dugg ci waxtaan wi. damaa ànd ak kéccëb ci otoom. ñuy daw lu sori maak moom papaam woo ko téléphone. ne kër gi dama koy defaraat. dama bëgg. ñu daje ñun famille bi yëpp ñu woo sa rakk yi nekk bitim réew ku nekk génne li mu am ñu tabax kër gi defaraat ko mu ne ko papa ba mu ne ko am ah, mu ne ko xale yooyu damaa bëgg ñoom ñëpp nga bàyyi leen te lépp lu war ci kër gi nga ma ko ma def ko. kër Mbay ji ne ko loolu day métti ci ne ko métti na ci man waaye méttiwut ci yàlla ndax lu waayam yàlla moo la ko jox maa ngi moom ñuy ànd ci koor gi paa bi di laaj mu di ko jox waaw bi di laaj ko jox bañ nekk suba gannaaw suba la korité ñu immigré kër gi kër gi pare ñëw faa dëkk ma ne ko lii def nga ko te ci ambition yi nga amee woon pour def ko ak bëgg-bëgg yi nga amoon bi sa waajur bu góor moo tax tey jii li sotti moo tax ma koy ñaanal jàmm bu baax nag lépp lu dugg yàlla suñu borom teg loxo ndax xam naa ne fu ko nit ñi di xool ak fi mu nekk sore na lool nag waaw loolu daal laa moon li may ibbee ñu jàkkaar ñu dugg ci waxtaan bi jamono yi ngeen ànd jamono bi euh, di ko ni sa ànd moom war na àdduna euh, ci mën a ànd bi dooree na ci géejawaay bu njëkk ba la woon loolu yàgg na ànd bi bi may xam buuse boobu xale bu ndaw la ma nekk xale bu ndaw ma xam ko mu digganteem ak laay bu ndaw muy ànd ak bu ndaw mu nekk lu yàgg ca géejawaay ma nekk école de Mor Fadam dëkkoon géejawaay ma nit mais l'essentiel soo gisee euh, guddi yi ñu toll ànd dafa jafe li tax may gën a ànd ak moom mooy ñett yi saa yoo gisee ku koy def jàpp ko xarit mooy ku am bokk ak yaayam ku am dimbale baayam ak koo xam ne chaque jour yaa ngi dimbale ay demande di soutenir say rak kooku nit ku baax la te man du ma ànd ak kuy tux du ànd ak kuy naan mën naa dégg ci yow lu nekk nag muñ ko waaye diw day tux day naan du ànd ak yow li tax loolu mooy chaque jour li may gis ci moom mooy bu sa këccëg ku ko def référence di nga réussir ci sa àdduna ndax bi yóbbu yaay màkk jafe la yóbbu yaay màkk bi taxaw ay rakkam jafe la taxaw ay rakkam bi taxaw defar seen kër mu taxaw defar seen kër te lépp lu mu am danaa la sama jabar samay doom sama yaay loolu rek ngay dégg ci ay doom kon kooku boo àndeek moom di nga am ay référence yoo àndeek moom te man loolu mu xam loolu laa xam lu mu am bokk suma yaay lu ma am bokk suma soxna lu ma am bokk bokkal loolu laa xam nit nag mënoo ñàkk baatu ginnaaw mënoo am lu rasulillahi amut nit ñi moom coow lee fi nekk rek mais nit balaa nga koo xas man dama jàpp ne képp ko ñuy xas ci àdduna bu mu la métti kenn rek moo war a mën a taxaw xas la mu métti la muy sa yaay man de saaga ci internet xas ci internet garaaw ci man man kenn moo mën a xas mu métti ma kenn moo mën a saaga mu métti muy kooku moom ma xasee du ma nelaw bu ma saagaa du ma nelaw ndax dama naa man lan laa war a def ci àdduna loolu bëggal sama waajur bu jigéen te mu xas ma kon war naa xoolaat sax bopp yeneen yi ci bari nag ñu bëri da gis koo xam ne nii ndeysaan ci ginnaaw clavier rek lay nekk nga gën ko juddu gën koy waajur dàq ko liggéey gën njëkk ko investir ci àdduna mu taxaw xas la te du xam sax koo jum la xasee mm-hmm. Sénégal a toll niveau boobu da ngay gis koo xam ne danay xas saaga la bis bi ngeen wéetee boo ne ko yow eh kii ngeen saaga lu tax nga saaga du la wax ban cause tax mu saaga la. kon yooyu yëpp ay détails la rek yu ndaw yoo xam ne nii ñu dugg ci waxtaan wi mhm. euh, comme ni ko mhm. nekk ca ndongo la maanaam nekk ca njiit

defagul dara ci làmb mënoo fay tëgg Eumeu Sène Tapha Tine tëgg fi Sa Thiès Eumeu Sène ne def nga dara ci làmb non non dafay fekk ku mel ni ay Gaston Xaali Meng fekk fi ay Abdoulaye Diallo Ndiaye fekk fi ay Luc Nicolaï ñooñu jëlee mbër 40 000 ba 150 millions neel Baye ñëw na ci coow day xale boo xam ne nii mental bi dafa baax gis nga làmb promoteur yi bëri nga ciy dugg di échec ñàkk a laajte a tax ñu ñu échec. xaalis tëggu ko ay pexe moo koy tëgg ak conseiller te Baye Ndiaye am na pexe am na conseiller am na liquide te li ko ci dimbale mooy lépp lu mu mën a fay balaa mu cee fay cent franc dina laaj ñam war a laaj man xaw ma woon ba dañ daan rombante rek Aziz njaay moo ñëw ba ci man ne ma dama bëgg Baye day tëgg combat day dugg ci làmb combat Eumeu seen Tapha Tine damaa bëgg bu subaa nga ànd moom ci avocat boobu signé combat bi loolu moo ma booleeg Baye te keroog bi ma xamee Baye ba léegi revenir tuma dara Aziz ndax benn ñàkk a jege Baye wala ñàkk koo xam erreur la ci benn côté mooy nit kenn du ko tàmmal xaalis Baye du la tàmmal xaalis dalay tàmmal fan ngay jaar pour mën a am xaalis. dalay jàngal nooy amee sa bopp. dalay jàngal na la nit dangay ngay am jàngal ne nit da ngay gëm sa bopp man làmb bi ma fi ñëw yàgg na yàggul ba fi ñëw mënoon naa liggéey fu nekk mais je préfère ma yor sama yëfu bopp mooy jàng ne nit nan lay def pour mën a mënal boppam ndax nit tey jii mën nga koo ñaan mu may la suba mën nga koo ñaan mu may la mais gannaaw soo mën na laa may jëppi la te gor day bañ ko ko jëppi moo tax soo gisee sama ànd ak Baye ma wax leen ne fi mu bëgg a jëm ci làmb saison ren bi combat yi ngeen fi dégg ñu ne Baye da koy tëgg yëpp mooy ñu jëm ci Ama Baldé Gris Bordeaux Balla Gaye Tapha Tine yëpp làmb yi ñuy tëgg déwén moo mën combat yooyu. am na làmb bi ñuy préparé pour déwén. saison yi moo ëpp coow moo ëpp pression. te calendrier yooyu ñu ngi koy bind ñu ngi koy teg ñu ngi koy waxtaan suba ngoon. lii mooy jëm déwén combat yi dañ koy rey ren yi ñu jëm ak moom déwén ci kattanu yàlla te ambition boobu loolu moo mën fi gars yi bëgg a yóbbu làmb làmb dafa jot ñu teel ko ne combat bi France la kii ak diw di bëri jee bii combat bi ñu ngi koy bëri États-Unis yooyu dafa jot ci làmb Baye Ndiaye ak Aziz dañoo créer benn benn challenge mooy dañoo xool tey jii ci boxe dañuy gis dañuy am cinq grands combats six grands combats rythme boobu la ñu jël indi ko ci arène bi su ngeen seetloo léegi ñu imposé amateur yi ne tey jii bu njëkk da nga daan gis amateur yi daan bàyyi ba 18 heures 45 wala 18 heures rek mu daal di ñëw stade stade grand combat bi ñibbi léegi li ko dalee ci premier combat ba dernier combat ci alburax combat pression lay doon ndax day ay combat de da leen di jaral mais boo xoolee combat booy ndaw yi ngay gis ñu njëkk ba am ñoo xam ne 1 million 500 lañ leen fay 2 millions. booy yi ni ñoom transport bari bari. si ma yaakaar ngir combat coow yi nekk ci ñoom am na ñoo xam ne 1 500 2 3 lañ leen loolu li koy waral mooy jox amateur bi nga xam ne nii boo xoolee journée la 5 bii ñu génn. amateur yi li ko dal ci premier combat ba dernier combat gisoo kenn ku jóg. loolu li koy may promoteur mooy promoteur boo xam ne day waxtaan ak manager waxtaan ak amateur waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy chroniqueurs yi waxtaan ak boppam. ñu defee lii ak lii wala ñu def lii ak lii lan mooy gën ñu ne nañ def lii ak lii ak loolu ci la Baye Ndiaye di sukkandiku du dugg lum laajtewul mu jëm nag ci boo xam nii amateur yëpp koy xaar. waaw le di bés di bés boo xam nii rek làmb du ko gaaw fàtte ndax xam nga lu trente lu ci garaaw mooy diggante Ama Baldé Gris Bordeaux Ada Fass Guy gi ah Liss Ndiago Zos ah, ah, ak ndigal ah, des na gàkku de bu laal des na ba léegi ñoom papa bu si te ma macag ñam loolu loolu loolu ca Balla Gaye la jëm combat Balla Gaye la jëm mais l'essentiel lii problème bi mooy gi nga combat Ama Baldé Gris Bordeaux loo ma ci laaj rek ñu waxtaan ci tuuti combat wu guy gi Ada Fass mën nañ cee ñëw ak yeneen combat yooyu maa la ci déglu. balaa ci combat yooyu bëri ci Ama Baldé. jamono ji ci wàllu làmb ba ci wàllu làmb ndax jóge na ci combat boobu ci la indi état de forme bi gën a bon ci carrière muy contre Modou Lo Ama Baldé daa indi daa bëri ak nekk njar ndéem Ama daa bëri ak nekk njar ndéem Ama Baldé bëri nekk njar ndéem ci carrière am ba war a digg daal ci làmb bëri ak kenn xamewu ko moo tax le retour de Ama Baldé le retour de Ama li tax de mbër moo xam ne nii ci làmb mbër mu nekk mën nga koo dàq bëri waaye li Ama Baldé di incarné ci géew amul benn mbër bu ko yor. culture la koy téye ci loxoom. Ama de kenn du werante ak moom mooy mbër mi ci naa Sénégal nee naa la kii mën na ko gën a nekk professionnel mën nga ko gën a nekk athlète mën nga ko gën a nekk lépp waaye lépp lu look làmb rek Ama Baldé la ko gën a nekk. ñu boole ko nag la Bordeaux Gris Bordeaux mi nga xam ne nii phase guddi yi ñu toll fi may wax ak yow koor ga ca combat Lac Rose fils de Balla ba léegi Gris Bordeaux mu ngi contact. ba léegi mu ngi écrire phase de contact. Ama bi mu jógee pare léegi gisoo ko ci benn écran mu ngi ci diini di rey boppam ñu war a jàkkaarloo ñoom ñaar seen deuxième jàkkaarloo wala seen premier jàkkaarloo mook ki nga xam ne ni tey jii mooy Gris Bordeaux ci kanamu alburax muy sam samedi ci guddi 2 yi. ay lagros bi Balde am na ay Ama Balde am na ay esprit de partenaire yoo xam ne kenn xamu ko mais yooyu nekkul ñuy wax ndax nekkutoo ñooy sax dëkku Pikine ñu ngi ëpp ñu koy jàppale ci contact dëkku Pikine. xam naa lu waaw mais l'essentiel Ama Balde Gris ay professionnels ñoo ko dal mm-hmm. dëkk bu Abass Ndoye nekk Moustapha Gueye nekk fa Père Amadou Kati Diop nekk fa. ndaanaan yooyu yëpp nekk fa Gris Bordeaux dañ ko sos combat bii Gris Bordeaux jëm du combat boo xam ne Gris Bordeaux warta indi koofur combat bii Gris jëm lépp lu làmb laaj Gris da ko war a indi le 30. waaw bi moo ko mën a may xaalis waaye combat bi moo ko mën a xam moo ko mën a xam. dafa dugg ci carrière ba carrière sori. ñu naan mu ngi ci fin mu gis buntu boo xam ne war na ca mën a xaalis mooy Gris Bordeaux dafa dem ba dernière fin phase ci carrière mu jël Ama Baldé te bu daanee Ama Baldé Sa Thiès nga fa Franc nga fa Reug Reug nga fa mën naa laa limal Alioune Seye numéro 2 nga fa mën naa laa limal juróomi xale ba juróom benn ay moromam yoo xam ne nii comme ci bëreel da ci am xaalis te nag dëggee rek fi amul combat léegi nag muy bëri combat boo xam ne nii di dajanteeg ndaanaan boo xam ne làmb kenn weddilu ko lim doon Ama Baldé du caaxaan ci làmb booy Ama Baldé booy buñ doon tey bu fekkoon ne tey ji da ngaa woo nit nit ne ko dama lay yónni ci làmb ci mbër nga woo nit nga fëgg ko nii ne ko kaay yónni la ci mbër bu tudd benn tur bu jógee ci Ama Baldé la jëm. ndax mbër la da ko doon ñaari yoon. nekk doomi Fallaye Balde ràññee ci làmb kenn utalu ko yoon Ama Baldé dafa boole daan ñoo xam ne boole leen daan yombul maa daan Papa Sow maa daan Malick Niang maa daan Tapha Tine doy na palmarès ci làmb dañ ne la Ama Baldé li gën a métti ci carrière am da ko réussir li gën a yomb ci carrière am da ko da ko raté muy contre Modou Lo ndax Ama Baldé combat moom Modou Lo dañ dama doon séntu ci Ama Baldé boo xam ne nii Ama Baldé kër bi mu simmee ko contre Malick a dar gémmiñ mu simmee ko contre li Taphatine di nekk géant ëpp ko. mu liggéey indi masse muscle boobu koŋŋ nekk mbër njarndeem xajam lool nga gis ko xam ne kii day daa bëri si. mais Ama Baldé moo jàkkaarloo contre Modou mu rafet lool kooku mbër ga des na Ama Baldé du mbër mi rafet ci géew. warul rafet déedéet. Ama Baldé bu paree dëgg-dëgg doo ko ñemee xool. Ama Baldé bu ngem boo dëgg dëgg dëgg dëgg bu la nga yaakaar ne comme yooyu fas yi takk moom moo yaakaar moo la romb. day xajam. mais Ama Baldé bi ñu gis contre Modou Lo bëggatuñ ko gis ci làmb loolu Pikine sax nelawuñ noonu ndax fi Pikine jëm la te dañuy dajante écrit boo xam ne nii fa la néegu ndeyu Ama Baldé dëkk. waaw. Ama Baldé yaayam moo Gris Bordeaux daanaka sorentewuñu. genn wàll su ko neexee fanaan Dakar su ko neexee fanaan Pikine ndax ndeyam ci askanu lébu la bokk muy champion boo xam ne nii nag làmb da ko namm ndax Pekaay Mbaye xam nga xam nga xam nga xam nga la 30. site internet bu nekk war na cee reyante liggéey. le waaw ndax dañuy jël Ama Baldé guy gi boole leen benn làng ci mikaay jël Ada Fass boole ko Gris Bordeaux benn làng ci mikaay jël Liss njaago indi ko ci côté bi nga xam ne fa la guy gi ak Ama Baldé nekk jël jos yóbbu ko ci diggante Ama Baldé ak guy gi te fi may wax ak yow nii arène nationale bàyyi mu ngi pare spectacle boo xam ne nii te jouru la 30 bu Pape Diouf mooy def live bi. ñu ñëw Ama Baldé fi làmb jëm ak moom moo tax Gris Bordeaux soo gisee lëlu bii mu lëlu Fass tënk ko nangatuñu mu pénétrer nangatuñu Gris Bordeaux nga gis vidéo am dara am fiitewut mooy fi Fass combat bi toll ci ñoom. combat Ama de carrière am ba mu daj mu ngi doog a dugg ci combat boo xam ne nii da ko war a gagné far force. Ama Baldé combat bi amul lu mu ci war a négocier ndax Gris Bordeaux dama ko dalal ci sama live. mu ne ma Fadam bam na waa mu ne ma Ama Baldé ñëmatu suul tànkam xeex ak man. comme man ci wàllu jaxaseeg waxtaan ci làmb laay topp. mën ko Gris Bordeaux bu Ama mu ne Pikine kuy takk ngeem bu ñëmatu conseil mu gëdd Ama Baldé ci biir géew. ma woo Ama Baldé téléphone INSEP de Paris. bu la gëddee nga suul sa tànk mu dóor la nga daanu. gi Ama Baldé dama barki Serigne Saliou Mbacké sama combat ak Gris Bordeaux am une minute. mu ne ko amaa ah, fooy waxee nii mu ne ma mu ne soo waajee Gris Bordeaux bu ñëw arène nationale dinañ xam ne sama diggante ak Modou Lo damaa juumoon. te nag Pikine dañoo waaj ndax Pekaay Mbaye mooy indi Ama Balde te Pekaay bu toogee fee bu sàjjee Pekaay lu mu des na. mën naa indi lu ko raw. ndax tëggkat mën naa tëgg loolu te fecckat bi du ko fekki te ab pakaay lu mu tëgg Ama Baldé fecc ko. kooku fan laay baayam. yàgg na. waaye kam jegenteel nag mooy coow li. borom soow de sëñ sëñ rythme bàyyi dem ba sëñ sëñ birim gi géew yaay Awa ñooy indi Gris Bordeaux mu làng ak Ada Fass te rakk ci ñoom bàyyi dem ba mooy bàkk Ada Fass kon Ada Fass dañ koy bàkkal Fass ba mu sax mu jox Gris Bordeaux mu àggali. non la cinq nag la cinq bés bu nekk am na ci làmb xam nga Fass Ndakaaru damaa dal la Moustapha Gueye barki mu ne ma combat wu bii ak guy gi bu laajee Fass récupérer Ada muy contact si biir Fass sax dañ koy def ndax combat bi làmb côté gox la kon guy gi na la war a waajee. waaw at gis naa Ada bu màgg. li ma leen wax loo xamuma diw ma ko wax de maa tiim Ada Fass yaramam. màgg ci doole. màgg na ci doole Ada Fass du ko jéggaani ndax du ko judduwaale. ma ñëw ba ci Ada Fass na ko booy màgg nga de. kaay leen wax leen lenn. Ada Fass mbëru ndakaaru la. dama ne la am na mbër yoo xam ne nii bay laa yow mi diini dañuy jëriñ làmb waaye am na mbër yoo xam ne dañuy jëriñ ci làmb Ada Fass mbër mi jëriñ làmb la ndax phénomène la. Ada Fass bi ma xoolee Ada Fass xool ko xool yaram bi xool xale bi mu màgg lool ma xool gëm-gëm bi ëpp doole ji li ma gën a yéem ci Ada gëm-gëmam ak bëgg a nekk mbërëm moo ëpp doole yi Ada Fass loolu rek moo ma gën a rey ci moom. waaw noo pare des na. xool naa ko mais Ada Fass mu des na mbër mën ngaa indi doole indi cawarte indi muscle bu baax mais da koy togg Ada Fass combat bii du combat bi muy préparé moom kese Ada Fass combat bii da cee war a contact ak ñu ko ëpp doole juróom-ñaari yoon Ada Fass combat bi da cee war a contact ak ñoo xam day am problème pour daan leen. mais est-ce que ak Fass écurie Fass benn lañu. kaay ma xamal la ñaari baat làmb amul comme dul jaaral nga jiggaane ci ay mbër làmb mbër mu nekk sa adversaire nag na mu mel noonu ngay préparé ji ay mel Ada Fass combat bi dafa ko waral mu jaral ko mu contact ku mel ni Serigne Ndiaye numéro 2 nga xam ne pour takk ko day nekk problème di imposer Serigne Ndiaye ma 2 Serigne di ko dëbb ay col di ko pousse muy résister bu xëyee contact soo ba ngoon du mën a daal di Ndiaye numéro 2 xëy contact bu xante gri bay bëgg a dee te du ko mën a daan bu ñëwee dajante ku mel ne pam doy mu koy song di ko jaar fu nekk te Fass am na benn phénomène bu Fass di làq du ma ko wax drapeau chef de l'État taaw daaw daaw jéeg ko la ko Moustapha Gueye gisoon mu nga Fass waaw mu nga fa mu nga fa Fass ko jël tikk di ko defar te kooku bi bu ko Fass génnee boo yu bëri fi dañu am problème mu ngi ñëw mu ngi ñëw. mu mu jëm nag ci guy gi. xam nga guy gi. Uh-huh. li gën a jafe ci làmb moo nekk ci moom. dafa am mbañ. waa mbañ. boo seetloo këreelu guy gi yëpp combat yi ñu guy gi da koy daan yëpp guy gi da koo daanu. combat yi koy ñàkk yëpp da koo da koo daan. waaw. guy gi dana mën combat tey ngay dee. moo tax Ada Fass il mu xam kan lay dajanteel mu ngi dajanteeg mbër mu mën géew mbër moo xam ne yuuxu du ko daq ndax daa dajanteeg Siteu Siteu ëpp ko mbooloo lu ëpp sept fois mu nekk à l'aise ci géew mu dajanteeg sarko Zarko nekk ndaanaan mu mu résisté ko dajanteeg Ama Balde bu Pikine di neex dëgg mu résisté Ama Balde résisté Boy Niang Boy Niang daan ko mu jël ama neex. daan daanaan yu bëri kenn gënu ko rafet palmarès waaye man su ma mën lu may wax guy gi laay waxal. dafa am cër ci làmb guy gi dafa am fu mu toll ci làmb te foofu mu ci làmb moo fa mën a delloo boppam xam nga làmb day toll guddi yoo xam ne nii mbër fu mu bëgg àgg mu fa yóbbu boppam du xar ku fa yóbbu te guy gi jot na fa mu tolloon ci làmb mu delloo fa boppam ndax champion la ba nekk mbër jëfee moom moo def boppam mbër.